say bagage te dem bàyyi nag suma bopp nañu teewlu nañu teewlu da dal nañu yëkkati ñooñu rek dal lii sama warteef mooy gëm naa ne yàlla daf ma liggéeyloo ci kër gi jox ma jumtuwaay bu ma liggéeyee maa ngi ci liggéey boobu te yaakaaruma ci payu ku dul yàlla te dara duma ci dëpp waaye dinaa ko def ci fulla dinaa ko def ci fayda dinaa ko def ci dignité danaa maslaa waaye bu ma maslaa ba kenn maasala su ma ci sama bokki bopp yéen taalibe yi noo di sant noo ngi leen di gërëm li suñu maam nekke woon ak seeni maam loolu la nu fas yéene continuer ak yéen mooy nekk ci seen kanam di leen wax kaay leen nu baax kaay leen nu dem rek lañ leen di wax waaye duñ leen mas a wax mukk dem leen li mu bëgg ci yéen mooy ngeen jub di jubal di jaamu yàlla te wattandiku tooñ laaj mu leen wërsëg yéen a ngi kenn mosu ci dégg ku nu sas du nu sas kenn du nu gane di kenn suñu maam waxoon na bëgg a doon sëriñëb nit taxu ma du ma jaralu ma jóge ci sama bunti sàkke muy sama buntu loolu la ñu gëm nun danoo gëm ne danoo war a jariñ taalibe waaye gëmunu na danoo war a jariñoo taalibe ay gor yu gore yu am seenum xel ku ñu jiital ci sa kanam ngir yàlla war ngaa am doxin woo war a doxe dul di leen exploité ci sa ittey bopp waaye bëgg nañu nag ngeen jaamu ji yàlla ba bu ëllëgee yowmal xiyaam fa kanam sëriñ Touba du rus ci kanam bëgg na ngeen wattandiku tooñ ba tinu di sëngéem ci kanam koo xam ne warunoo sëngéem ci kanam bëgg na ngeen nangoo liggéey ba mën a sàmm seen ngor ak na ko Touba yabalee bañ mu fi bàyyi ko bëggul leneen ko rek la bëgg réussir na message ba vision ba réussir na ko keroog ba nga xamee ne Serigne Moudou Moustapha yebal na fi Serigne Samba Aminata Diop ci ma ne ko boo demee ne ko ca Taif dama fa am suuf soo xam ne moom laa ko cëralee na ñëw na ñëw wetti li ma wetti li ma sëriñ Baba daa wax sëriñ Samba Aminata ne ko boo demee mbaa li ma lay wax boo demee di ko ko wax mu ne ko dinaa ko ko wax mu ne ko boo demee nee ko Sëriñ Tuubaa waajuram moo ma noon demal nduuf liggéeyal fa yàlla te su ma sañoon su ma ko fekkee al àllaaxira bu ma nee foo jóge ma ne ko nduuf su fekkee na nag ndigalal Sëriñ Tuubaa loolee moom bëgg na koo dindi moo fi nekkal Sëriñ Tuubaa bu koy dindi rek may ñëw ba mu demee wax ko Sëriñ Muudu Moustapha Sëriñ Muudu Moustapha dafa jël suukar ak café ak ataaya jox ko ne ko boo demee joxal ma ko Sëriñ Baaba ne ko tuub naa xalaat bi sax ndigalal kookee mat a def sering baaba bi mu dikkee fii ba war a moom paaleen ca njàmb parce que foofa la dëkk ba mu waree moom dëkk ba dafa jóge fi dem mbigéen sering daam faal mi taaw ki may wax mi ci dafa dem mbigéen jël fa doomam ju ñuy wax balla faal ne ko kaay paaleen téel ma suuf si ak dëkk bi man fa ma sëriñ tuubaa toog la woon lay toog duma ko lu moom ba ba may loolu la seqoon ak Wanduuf ngir liggéeyal Serigne Touba loolu la ñu seq ak yéen du ñu fi jóge mukk du ñu dem feneen soxla fu nu feneen gisuñu leneen fu nu mën dem nekk bu nekkee ci réew mi bu guddee lu fanaan si waat fii kon nag noo ngi leen di sant noo ngi leen di gërëm ndax bu mu leen laajee joxe bu nu leen digalee ngeen def bu nu leen teree ngeen bàyyi yàlla nu yàlla dimbali ba nu leen di digal lu dëppoog ndigalal yàlla di leen tere tere boo xam ne dana dëppoog tere yàlla nu ànd ak yéen ci ndigalal yàlla ba ba nuy am ngërëmal yàlla